Rahmatullahi Mariam yàlla daf ko may dund gu teey gu barkeel ni nga ko waxe at yi gàtt na ndax fanweeri at ak ñett ci jigéen miinu miinuñu cee gis sax ci jigéen sax daanaka day mel ne jigéen bu ju tollee ba léegi du xàmmee ci yeneen xeeti jigéen yi waxantuma la ak di ca toggoo leen wala mu di ca taxawal leen waaye fanweeru at ak ñett la yoo xam ne yi fees na del ci lim war a feese te loolu mooy lislaam ak ngor ak jom ak taxawu réewam taxawu njabootam taxawu jullit yépp taxawu itam der bu ñuul ndax kenn ku ne xam nga ne maam jaara yàlla fay na ko fay gu wér a wér ndax lii dégg nga jigéen ju ne ci lislaam waaye dégg gu jigéen ju ciroo ne moom ci lislaam lislaam taarix daan la nett li jigéen ju ne waaye jigéen ju am lii dégg déggaguñ ko fenn gisaguñ ko fenn te lii ñun ñëpp noo ko dundal suñu bopp xamal ko suñu bopp waaw taarix nag nett li noonu ku ne waaye noonu gisaguñu ku yàlla cërale jigéen ju yàlla cërale la moom te cër defe naa mënu woon a na sëkk cër ñu ne la yaay yow la yàlla baaxee xaadima rasul nga xam ne mooy sa résultat yi jëf sëñ Tuubaa ku mu doon sa résultat kenn ku ne xam nga ne say jëf sell na sa mbir leer na kenn ku ne xam ne xam na tegu nga ci yoon wu jub yoon wi nga xam ne mooy yoon wi yàlla gërëm te loolu ndimbalu suñ borom la ci moom waaye yàlla da ko dimbale itam mm, tànnal ko askan wu sell tànnal ko ay wayjur yu sell ndax Sëriñ Tuubaa xam naa ne waajal gi ko suñu borom doon waajal ci la yàlla waa waajale waale li jëm si ci moom lépp day doon lu taaru lu sell loo xam ne benn gàkk-gàkk wala benn sikk wala benn nax-nax du ci am ndax loolu mat gi sëriñ bi mat dara waru koo mën a manqué la kon nag lépp loo xam ne da koy laal rek lu sell lay doon ndax Sëriñ Tuubaa dafa niru yonent bi ci lépp xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi noonu ko woykat ba doon waxee lam lam lam yazal wa huwa fi damir al xayb euh, tuxtaaru lawul ummahaatu wal aba bi sallallahu alayhi wa sallam mm, ba dara du dara it dara xewagut la ko yàlla tàmbali woon di ko tànnal ay waajur ay ndey baay ngir lépp mën a sell rek nga xam ne bu ñëwee kenn du am looy contesté ci moom wala leen looy yëg ne manqué na ci moom loolu itam Sëriñ Tuubaa da koo niru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko niroo ci mbir yëpp léppam li nga xam ne moo waroon ci la waroon a jaar yàlla da koo sellal ndax xam nga ne maam yu sell yi nga xam ne moom la ko yàlla tàndal muy càll la goo xam ne gi mi ngi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na doomam ji ñuy wax sayyidatuna Fatima radiyallahu anha mu dencaloon ko saxaabi bu mag boobee nga xam ne moo doon mbokkum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ali ibn abi talib karamallahu wajha yàlla baaxe ko ca ay doom yu sell yu am maanaa yu siiw nga xam ne kenn ku ne xam na ni ñu toll ci lislaam ak ni ñu toll ci jullit ñi muy al al alxasan wal xusayn ci xasan nag ci la sëriñ tuuba génne maanaam ci la maam jaara jaare maam yu néew yoo xam ne fanweer ak nangam rek la matul ñeent fukk fanweer ak juróom-ñaar fanweer ak juróom-ñett nga agsi ci yonent bi sallallahu alayhi jaar ci Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani ak yeneen kilifa yu ràññiku yu baax a baax a baax loolu rek firnde ci firnde leen ne ci yàlla euh, li mu namm ci sëñ bi moom teel na ko euh, teel na ko annoncé lu sell loolu ko yàlla tànnal nag bi mu ñëwee itam. ay way waajuram yi nga xam ne ñoo ko meññ itam góorlu ca loola bu baax a baax dëgëral ko ndax doy loowut woon juddu ba rek waaye dafa jëf ci lislaam loo xam ne li may na ko mu yelloo cër bu bu mën a doon moom waajuramu tedd wi di maam jaaratullahi mariam ndax kenn ku ne dégg nga li mu jànkoonte ci biir kër ak li mu jànkonte ci biir àdduna ak teraanga yure yi nga xam ne moom la doon teral sangam bu tedd boobee di sëñ Mbàkke Mor Anta Sali radiyallahu anhu kenn ku ne dégg nga ci yu bare bare dégg nga ci xissa yi sàkket yaag fanaane tawta yaag teen yaag xargaal yaag di ko xam daggte ay mbalaanam ay yërëm di ko def ay goj di ko ko korootale ak sonne goo xam ne gii sonne woon na ko mbiram ak yittewoo goo xam ne gii moom la yittewoo woon jot ngërëmam ak damu bànneexam def naa kenn ko ne dégg nga ci euh, lu la doy a dégg te loolu lépp nag da koo defoon ginnaaw bi nga xamee ne bi mu jiitalee yàlla mi nga xam ne mooy boromam sàkk ko taxaw ci warteef yi nga xam ne moom la ko santoon yëpp bi ko defee ba matal ko ba noppi itam li nga xam ne moo dox digganteem ak suñu mbokki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu itam da koo leeral rafetal ko yam ci ay loxoom sàmmonteeg ay ndigalam bàyyi ay teram ginnaaw bi mu sàmmonteeg ndigali suñu borom bàyyi ay tëram nekk ak moom nekkin wu sell nekk ak ñam seqaloon daara yi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali tam nekkin wu sell nekk ak bokki dëkkandoo yi bokk nekkin wu sell nekk ak bokki jullit yëpp nekkin wu rafet ci jox leen worma ak weg leen ak bàyyi leen xel du leen ñaawal du leen doyadal comme ni ko ni ko waykat ba waxee rek walam tuhin ahadan walam tashin amada walam tubin abadan man aba maana nee na maam jaar daal mësta doy dal kenn mësta ñaawal itam benn jamono diirub jamono mësta ñaawal mësta fay itam kon ku mel noonu kenn ku ne xam nga ne luy luy ngor ak ak nga ak jom mi ngi ci kon ku mel noonu ku ko ayibal ku ne yow yaa sikk yaa wax lu lu lu lu doon dëgg koo xam ne mutiatin rabbaha wa cheikha sayidaha ardatu afaaluha lillahi idmaana li mu li mu fi nekkee woon daal mooy topp boroomam tabaraka wa taala ginnaaw bi mu toppee yàlla ba noppi itam mu topp borom këram boobu nga xam ne mooy sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali radiyallahu ba jëf yu baax yi yu rafet yi nga xam ne maam jaara da ko saxaloon te di ko def te doon tax jëf la yoo xam ne doon na bégloo suñu Mbàkke Mor lool di ko gërëm lool te lépp nag ginnaaw bi ñu ko waajale mu am askan yu baax ndax ni niñ niñ niñ ko waxee asilatin adaban sharifatin nasaba karimatin xasaban tafdiluha xaana dëgg la ku cosaan woon la ci lépp ci teggin yaag ci askan waag ku tedd tedd ngor gaag yëpp waaye teewul it nag mu góor góorgóorlu ci taxawe li nga xam ne moom la war a taxawe ngir gën koo mën a taarale loolu yi nga xam ne moom la doon woon ci ay baayam ak i maamam ak i ak i léppam ndax euh, waxkat yi ba euh, sang yu baax yi nga xam ne ñoo jamononte moom nee nañ itam ay baayam ak i maamam ak i ak i magam ak nijaayam ñoo fi gënoon itam te liñ gëne woon nit ñi mooy diine ak ngor jikko ak diine rek lañ lañ lañ lañ gëne woon nit ñi te loolu loolu mooy ngëneel ci lislaam itam tax ba nee na waykat ba nee tey amma albilaadu amma albilaada jamian matxu jaaratina fallaahu yumlikuha yumnan wa iyaana amma abuha axuha xaaluha fahumu xayrul mashaayixi axlaaqan wa addiyaana nee tey foo dem ci réew mi wala ci bitim réew ña ngay tagg maam jaara di ko joobe di ko yëkkati di ko kañ yàlla na yokk ngërëmam ci moom dolli ko barke te dolli ñu ko ñu itam waaye kooku dal baayam di Muhammad moomee siiw woon ci ma buso ak mbokkam moomee ñuy wax sëriñ buso bi doonoon magam ak nijaayam jooju ñuy wax tafsir mbàkke ndumbe radiallahu anhum nee na ñooñu daal mboolem sëriñ si ñoo ci gënoon kii ku doon kilifa ñoo la tiimoon te liñ la tiime woon mooy diine rek ak jikko rëy jikko jikko yi lislaam gërëm yépp eh, ñu ñu ràngoo ko yi lislaam gërëmut yépp ñu rekki ku ci te loolu kon xam nga ne maam jaara milieu boobu la dund ci la màgg lool lañ ko nàmpal loolu la xam xamul leneen ndax dégg nga soxna Asta Walo radiyallahu anha mu tedd ma nga xam ne mooy juróom nga xam ni réew mi kenn rawu ko fi woon ci xam-xam kenn daq ko fi woon a jàngale mu doon jàngalekat bu mat bu mag boo xam ne jàngale alxuraan ak xam-xam la doon liggéey yàlla may ko mu dund dund goo xam ne gi yéeme na ndax ku dund lu mat téeméer at ak fanweer yu manqué tuuti ci li gën a siiw te lépp nga def ko ci lislaam mosoo neenal dara mosoo am comportement bu bon ndax ku ne dégg nga ñu ne am colom sax colom góor la daan sol lu mel ne ay xeeti jalla bi ak xeeti tuba yi nga xam ne mm, lépp yàlla digle ñu war koo warmaal war koo suturaal rek mosu ca wuñ ñi dara doon dundal lislaam doon ko taxaw jàngal ñu bari ba doomam yi yu tedd yi di maam Jaara ak sëriñ Bousso moo leen jàngalal boppam jikko yu rëy yi nga nga dégg ci maam Jaara yëpp mokk ko nampal mokk ko sax ba maam Jaara wëlbatikuwaat moom la mu jàngoon mu tariwaat ko sawaat ko Xaadimu Rasuul ndax Sëriñ Tuubaa dégg nga ñu ne li nga xam ne moom la gaa yu baax yëpp liñ leen di nawee di leen ko taggee ci fanaane taxaw guddeeg ber wéetal suñ borom ak xeeti jaamu yu yi ngay dégg yëpp sëriñ bi bi mu demagul daara fekk na mu tàmm yooyu te lu koo ko tamal way juram moo moo ko dëkkee woon ci noppam di ko di ko nettali nettali gaay yu baax ya te lu mu ko nettali rek sëriñ bi day daal tàmbali di toggoo loolu di ko jëfe moom te boobu demagul daara kon kooku xam nga ne ay way juram yàlla tëral na leen réel na leen waaye ñoom itam bàyyi woon nañ xel diine lool bàyyi woon nañ xel itam seen ngor bàyyi woon nañ seen xel itam lu taaral lislaam ak lu ko sagal kon melokaan yu rëy yu tedd yooyu moom la maam jaara doon ne ci woy juróom yooyu ba ci maam asawa radiallahu anha doon niñ ko waxee woon doon koo xam ne ki sawaama la woon warkat bu mag a mag a mag la woon koo xam ne ki daf daf ko ab wooraakoon la woon doon xawaama koo xam ne ki daan fanaane taxaw di julli waxtu wu ne mi ngi naafila doonoon itam baara saxiya doonoon ku baax ku tabe koo xam ne kii daan dundale alalam li mu yor lépp ba du dese dara waaye doonoon itam zahida doonoon jigéen joo xam ne yu la waaye doonoon itam nag faadila jigéen ju baax ju am ngëneel doonoon itam faqiha doon koo xam ne kii dafa jàng ba ne arab xam lislaamam xam fiq xam-xamu fiq te loolu kilifa yëpp loolu la ñu seere ci moom ni ko Cheikh Mouhamadul Bachir waxee mooy lii rek julleem yu bari yooyee dégg nga di ko tudd ak kooram yu bari ya ak saraxam saraxeem yu bari yaa ngir bëgg lu baax fàgg lu baax di dundale ci yoonu yàlla loolu lépp bëgg lu baax a taxoon mu di ko def ak gi mu jébbaloon borom ci loxoom ginnaaw ko déggalee gi nga xam ne moom la déggale woon suñ mbàkki morant seen radiallahu defe naa tey loolu mu daj ci lislaam daj ko ci kër ki ko yàlla boole na muy suñ mbàkki Mor Anta def naa cër bi bu mu mën ci àdduna ak yàlloo na ko waaye liggéeyal na yàlla waaye yàlla fay na ko ndax ku yàlla fayee sëriñ Tuubaa di seetlu la dara mustaanisiina bi azkaarin wa aayaatin ah, jërëjëf sëñ Cheikh ci leeral yu am solo yi nga xamante ne nii yëpp indil ngeen ko yow itam ñi ngi lay sant di la gërëm muy cosaanal bis bi ak li aju ci soxna si akub liggéeyam kon itam ñu ngi lay sant di la gërëm ci leeral yu am solo yooyu kon nag dañuy daal di wuy ci màggal gi rek gis ngeen mbooloo mi koo ko natt rek weesu na ko ndax àddina sépp fi daje te poroxaan de ku ne xam ne ni euh, soxna si nga xamante ne nii moom la ñuy ziyaare bis bii moom rek ko am ci diine lislaam euh, néewaa na ci taarixu lislaam jigéen ju xamante ne nii ci biir diine lislaam am na lu toll nii mu am te loolu ab liggéey ma ko ko may te liggéey bu rëy boobu yëpp mi ngi ko def ci lu toll ci fanweeri at ak ñett ak dundam ci kaw suuf kon loolu def naa ne liggéey bu rëy la ci biir loolu itam dañuy daal di dikk nag ci li nga xamante ne nii moom mooy fédération daayira Maam Jaara yi te liggéey bu rëy boobu Serigne Moustapha Bassirou Mbacké yal nañu ko yàlla fayal def ci liggéey bu am solo taxawal lii ba mu agsi fii tey euh, école bii ngeen